maître euh, Massokhna Kane ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen di fay. yow avocat nga ngay njiital tamit SOS euh, consommateur kon ak yow mën nañu waxtaanee lu jëm ci njëgu dund gi ndax Sénégal bëri na léegi lu ñu koy waxtaanee ci jamono yu ñu toll. lu ñu nemmeeku mooy état dafa am taxawaay nekkoon yenn njëg yi dana koy wàññi waaye ci beneen fànn ma commerçant yi nee ñu kon déet du ca dal lan nga ko jàng naka nga ko jàngatee ak lan nga jàpp ni moo ko waral. d'abord li may wax mooy Euh, njëg yi ñu wàññi hmm. par n'importe lequel hmm. suukar bi ñuy wax ni dañ ko wàññi wàññi wuñu suukar suukar da doon jar kilo six cent francs hmm. ba ñu toog le deux février bii passé président de la république def conseil des ministres daal di tàggatoog ministre yi wax leen ne leen nañu préparer seeni dossier loolu le deux février la woon ca ëllëg sa le trois février ministre du commerce jël benn arrêté yokk suukar bi juróomi dërëm kilo bu nekk hmm. te bi mu koy def respecté wul euh, procédure bi nga xam ni fa la waroon a jaar pour ñu mën ko yokk dafa xëy rek yokk yokk boobu nag buñ ko xaymaa sept milliards la la doon jural askan wi ñun ñu daal di dénoncé loolu wax ni ministre bi warta def loolu wax président de la république ñu ñaan ko ni ko na annule loolu yokk boobu ministre bi yokk loolu la ñu annulé fi mu nekk delloo njëg gi six cent franc yam daan jar donc wàññi amu fi delloo njëg place am moo fi am mais wàññi amu fi donc loolu il faut ñu leeral ko bon état bi nee na def na quarante sept milliards léeg-léeg ñu ne cinquante milliards ci wàññi ay taxes pour que euh, wàññi yooyu mu wàññi ci diwlin bi ak ceeb bi mën a profiter askan wi mais dañuy wax état ni ko loolu bu fekkee ni am na parce que dañu avancer ay chiffres yoo xam ni amuñu benn firnde ni quarante cinq milliards la wala cinquante milliards mais comme état moo ko wax dañu ni bu fekkee état def na loolu loolu lu baax la ñu ngi koy rafetlu mais pour que population yi mën ci profiter il faut que njëg yooyu ñu mën ko respecter ci boutique yeeg ci marché yi te état amul actuellement jumtuwaay yu mat pour respecter lu mesure yooyu ndax commerçant yi non seulement wax nañ ni ñoom du ñu nangu loolu commerçant yi ñoo wax seen i organisation ñoom ñoo wax ni ñoom du ñu nangu loolu tant que seen stock yi jeexul mais loolu ñu wax état bi mënu ci dara parce que mënu leen imposer euh, ndax mënut a dem amul ay contrôleurs yu mat yu mën a dem ci marché boutique yi contrôlé amuñu ko itam jox ñu leen moyen yooyu pour ñu mën ko def jox ñu leen ko te itam commerçant yi nee nañu ñoom du ñu respecté loolu tant que seen stock jeexul te commerçant yi ñun dañuy naqarlu loolu parce que loolu rafetul jaaduwul ndax bu fekkoon dañuy yokkoon njëg gi tey tey tey tey ñoom ñu appliqué. Mm-hmm. yokk boobu mm-hmm. donc bu ñu nee il faut ñu xaar stock yi kañ lay jeex stock yi kañ lay jeex loolu ay wax la yoo xam ni wekkuñu ko fenn jaaduwul mhm. te dañ koy euh, dañ koy naqar lu ko dara mhm. de leur part c'est pas responsable mhm. en tout cas état bi décidé wu na mais tamit ñu ngi ñaax askan wi muy consommateur yi ngay layal ne kon ñoom tamit war nañu bokk ci xeex bi ñuy dénoncer yenn yi est-ce que tamit consommateurs yi amuñu ci wàllu maître amee ah, wàllu biñ ci am bariwul état moo war a organiser loolu ñun waxoon nañ ci euh, ginnaaw ci jamono yële passé waxoon nañ ni état bi dafa war a recruter contrôleur yu doy sur le terrain te comme état bi du ko mën def du mën a recruter ñu doy parce que boobu ba léegi defu ko ay ati ata ati ngi luy contrôle économique ak yooyu yëpp kenn déggatu ko si euh, même bu fekkee am na ay contrôleur barewuñu amuñu ay moyens loolu ministère boobu kenn jox ko ay moyens mm-hmm. mais ñun dañu waxoon ni nañu jël ñi nga xam ne lañuy wax les volontaires de la consommation maanaam quartier bu nekk ca ASC mm-hmm. wala jeunes yi fa nekk ñu jël ci ay ay ay ay volontaires yoo xam ni bénévole lañu ñoom ñooy dem ci boutique yi di xool ndax ñu ngi affiché njëg yi ndax ñu ngi respecté njëg yi bu ko defee bu fekkee gis nañu boutiquier bi respecté wul ñu woo waa contrôle euh, économique waa service euh, régional ñu ñëw bu ñu defee euh, bu ñu constaté ay infraction pénalité yooyu ñuy fayee ko commerçant yi ci la ñuy fay Euh, volontaires yooyu ñun loolu la ñu proposé woon mais loolu amul te état bi amul moyen pour nekk toujours sur le terrain pour contrôler njëg yi te commerçant yi nee nañ duñ ko respecté Euh, tey ji nag li tax nit ñi gën a tiit lu mooy njëg yooyu ñuy wax mooy lii xew diggante Ukraine ak Russie ba tax am na ay réew yu mag yu teg daan Russie te Russie moomu xam nañu li ko yàlla nattal ci wàllub kon ay ressources naturel ak i ñoomi seen euh, ndax ragal nga ni yëf yi ñu yëg ko euh, fii ci senegal waaw loolu buñ ko waree yéegi jotagul léegi ñun dañu gis actuellement ñuy wax cour yeeg di wax ñiy defar farine. Euh, ñu ngi wax ne dañu yokk il faut njëkk yi yokk ndax Ukraine yokk na ñii di wax pétrole bi cours bi yokk na donc il faut ñu euh, kii ainsi de suite mais loolu même bu fekkee ni cours yi dafa yokk euh, li mu war a dal ci njëg yi fii ñetti weer lañ ko war a seet ndax kuuru tey dans trois mois lañ koy appliquer wala quatre mois ndax li ñu waroon jëndee ci actuellement li ñu xam ne moom la ñu consommer actuellement bañ ko jëndee yàgg na ci cours yi la passé donc waragul dal suñu ko actuellement ba ku mel ni Dangote yi ñuy wax ay yokk ciment ku mel ni euh, euh, borom farine yi hmm. di wax affaire blé di wax yokk farine loolu jaaduwul te itam nit mënu ko nangu te gëmmu ni état bi dana valider loolu hmm. loolu mooy loolu mooy benn bi ci des depuis lu mat fukki at wala lu ko ëpp ñu ngi wax ne nañu teg fii Sénégal li ñuy wax fonds de péréquation et de stabilisation des prix xam ni cours mondiaux yi moo xam pétrole la moo xam blé la moo xam lu mu mënti doon su boobaa même bu yo bu bu wàññeekoo euh, bénéfice boobu bi ci am ci prix dañ koy def ci fond bi de sorte que bu cours yi yokkee bu njëg yi waree yokk dañuy jël ci fond boobu daal di stabiliser njëg yi bu ko defee njëg du yokk loolu am na Côte d'Ivoire am na ci réew yu bare bare hmm. loolu la ñu waxoon Sénégal nañ ko def parce que mos na am temps wu moo tax ñu ne Sénégal na ko defaat moo gën parce que mënuñu toog rek di xaar bu cours yi yokkee yokk te cours yi bu wàññeekoo kenn du wàññi kenn du wàññi euh, essence kenn du wàññi euh, farine yi duñ ko wàññi kenn du wàññi denrée loolu dafa jaaduwul jubul te jaaduwul. Mhm. ci jamono yi nga xamante ne ñëpp a ngi tiit ci yokkute yooyu ak liy xew kon diggante Ukraine ak Russie ñu gis ni ci Sénégal njiitu réew mi soobu na ci ay investissement yu takku a takku muy ay chantier yu ci mel ni TER ñaareelu phase ba. stade du Sénégal ak yeneen ndax jàpp nga ni loolu euh, comme mu Sénégal dina ko mën a tenir surtout bu fekkee dañoo fas yéene euh, taxawu consommateurs yi. waaw borom xam-xam yi économistes yi ñu ngi wax ni Sénégal seen i bor dafa ëpp boo ñëwee yokk ci maintenant plus de deux cent milliards defe naa deux cent dix sept milliards la ñu wax pour yokk terre bi quinze kilomètres fukki kilomètres ak juróom. lépp ñëpp xam nañ loolu du priorité pour Sénégal terre bu njëkk bi sax du priorité xamtuma la lii ñu ci bëgg a yokk te war a tabax ay classe pour remplacer abri provisoire war a tabax ay école war a tabax ay université pour remplacer université virtuelle parce que doomu baadoole yëpp université virtuelle lañ leen di teg doomu borom kii ñoom ñoo nekk ci université yi bu ñu France wala beneen réew war a tabax ay hôpitaux gis nañ ni hôpital la doon teg lu mat juróom-ñaari at a ngi ni ñu ngi wut lu mat quatre-vingt-sept milliards te hôpital boo ko tabaxee wala université boo ko tabaxee ay junni nit ñoo fay nekk tous les jours alors que boo tabaxee stade wala nga tabax ay aréna yu gën xamul mën nañ toog ñeenti weer wala juróom benn weer yoo xam kenn du fa teg tànk te dañuy dépenser ay frais pour entretien loolu du priorité dëkk boo xam ne bi dafa mel ni Sénégal donc loolu yàq xaalis la dugal xaalis nag fu mu wartu dugg yokk boru réew mi la te amul benn njëriñ amul benn jeexatal ci askan wi. Mhm. léegi ci sa mbubu awoka ñu gis ni kenn ci ñi ngay layal di Ousmane Sonko ba ñu ko defee ci contrôle judiciaire mat na léegi at te diggante bi lu bari xew na fi nekk na sax maire ca Sikicoor boobu ak léegi mënuñu ko teggi lan moo lan nga jàpp ni moo ko waral. waaw loolu ñoom xam nañ lu ko waral mais ñun li ñu jàpp mooy euh, dañu ragala doxal dossier boobu parce que dañu ragal a déglu Ousmane Sonko loolu dong moo ci nekk ñun nag dossier bi euh, dafa nekk ale l'instruction moo tax du ñu ci wax comme ñoom niñ ciy waxee comme ni ñuy bàyyi seen client mu di ci wax ñoom dañu bàyyi ndaw si muy wax bay wax ci médias internationaux yi ñu yaakaar ni mën nañu euh, yàqal Ousmane Sonko au contraire dañ koy rendre service parce que day wone day wone Euh, jublan gi nga xam ne moo nekk ci biir dossier boobu day wone pexe yi ñu koy fexeel ci dossier boobu te mënaluñ ko dara yàlla rek moo koy aar yàlla moo koy yore te li ñuy def dañ koy yokkal plutôt publicité dañ koy yokkal ki moom bu waree génn wax dana wax te du wax ci dossier bi wax na ko ñun ñi nga xam ne ay nañ du ñu wax ci dossier bi te buñ ci waree wax danañu demander bâtonnier de l'ordre mu autoriser ñu ñu wax ci li ñu ci war a wax ci loo xam ne du violer secret euh, euh, instruction bi donc loolu lañ ci wax ñoom dafa mel ni dossier bi dañ ko bëgg a teg rek mu mel ni épée bu bu ñu teg ci kaw boppu euh, Ousmane Sonko. Hmm. xam ne dañuy xaar ba élection jub ñu soog ko yëngal waaye nag luñ ko dara te dañuy gën a ñaawal seen taxawaay moo tax ñu leen di wax dossier bi euh, son Sonko yàgg na demande ñu entendre ko waaw mais naka la ñuy entendre ki nga xam ne moo porte plainte entendre sax ay témoins entendre ñëpp te ki xam ne moom la ñuy accuser ñemewuñ ko entendre hmm. depuis at depuis at moom muy demander ay avocats di demander pour ñu entendre ko au fond ñu bañ ko entendre ah malgré euh, remplacé nañu juge loolu loolu dafa dafa doy waar te dafay wane ni jubadi moo nekk ci dossier boobu. ñàkk teggi contrôle judiciaire bi lan lay yàkkal euh, moom Ousmane Sonko ak ndombal tànk bi mu am léegi. waaw dañ koy jéem a empêcher mu liggéey mais ñëpp gis nañ ni mi ngi liggéey mi ngi liggéey maanaam contrôle judiciaire boobu dafa amul. jeexital ci moom parce que euh, dafa ëpp loolu kenn euh, mënu ko xalaat sax ni lii mën na am ci affaire humaine te am na yeneen affaire yu fi ñëw ci ginnaaw bi yoo xam ni dañ ko gaawantu gaawantu liquider ko affaire boo xam ne bii affaire nañ nañ affaire privée la lan la ci état di dugalee loxoom bañ ciy def sax ay communiqué démb xaw ma démb def nañ ci benn communiqué euh, boo xam ne bii ñu ngi ciy wax naan passeport am lii passeport am lii loolu yëpp juba di la état warta taxawee boobu boobu tànk mais ñoom ñoo xam euh, li tax ñuy def loolu parce que euh, xëy na Ousmane Sonko euh, dañ ko ragal xëy na loolu la du ma ni lool la mais damay yaakaar ni xëy na loolu la parce que mais dañ ko dañuy war a xam ne mënuluñ ko dara yàlla rek moo koy aar te mënuluñ ko dara. Hmm. am ngeen ay pexe yi ngeen di lal mbam pour teggi lii di contrôle judiciaire bi. waaw ñun pexe bu ñuy lal ak bu ñu dul lal ñun dañ koy waxtaane suñu biir hmm. la moment venu ñu jëfe ko bu fekkee dañu war a wax sous euh, l'autorité du bâtonnier ak euh, autorisation ñun avocat yi ñu wax mais moom mi ngi wax bërki bu wax na te sénégalais yëpp dégg nañ ko. ma fàttali kon yow yaay maître Massokhna Kane di avocat nekkit njiitel SOS consommateur maître ñu ngi lay gërëm bu baax ci sa disponibilité. maa ngi leen di gërëm di leen sant aussi.